na loxo yi jóg ca kaw a kaw. xeetal li ka ba. na loxo yi jóg ca kaw a kaw. jigéen bi ba. na loxo yi jóg ca kaw a kaw. xeetal li ka ba mu nii. ca kaw a kaw. waaw loxo ca kaw a kaw. ku yëg yee yee yee. happy birthday. to you. joyeux anniversaire. bés bu dellu si. Youssou Ndour yow. Today. Youssou Ndour yow. Today. Happy birthday. To you. Joyeux anniversaire. Bés bu dellu si. Money. Youssou Ndour yow. Eh, voilà très bien léegi nag ñëw ci programme bi spécial Youssou Ndour la tey waaye tamit nag bés bi Youssou moom ko dafa am ñeneen ñu mu ko bokkal ci kanam dañ ci xam dara ñu daal di invité ki nga xam ne mooy Miss Promotion mu daal di wax ñu ci produit yi rapidement ñu daal di dem ci programme bi tàccu leen ki nga ne mooy Miss Promotion mati yow nañu xaar ay <laughs> ca boog allez-y rapidement waxtu ci tous mbokk xarit yi dal leen ak jàmm ci suñu biir plateau bu yanj bi fii ci biir émission Kouthia Show mooy ñëw nag sama produit yanj yi nga xam moo nekk sama table bi daal leen koy présenté lii nag mooy gàmmu CT plus parce que gàmmu CT plus nag bii nga gis ne mooy orange bi mooy carotte bi xam nga lu ko tax a jóg pour weex tàll résultat du jour nga koy diwal daal di gis résultat am na li nga xamante ne bi mooy lait bi bëggee am teint bi la neex da jël li nga xamante mooy gaam ak gaamu CT plus nag li ci gën a neex mooy résultat bi 10 jours nga am li nga soxla damay ñëw ci li nga xamante ne nag mooy CT plus bi nga xamante gaam la moom tamit mais pour teint noir la ko jub xam bu ñu defaree pour ñu xees ni dañu daal defaral pour ñi nga xamante ñi dañu bëgg maintenir seen teint moom tamit gaam la am na savon am na gel de bain am na li nga xam ne mooy lait moo ko tax a jóg daal sa teint daal lay maintenir moom du la xeesal kon bii nga xam ne 10 jours nga daal di gis li nga soxla waaw damay ñëw ci li nga xamante ne mooy madaar madaar nag dafa ñëw li nga xamante ne bii mooy bii nag mooy pâte dentifrice bi nee naa la boo koy patoo mère waaw bi mooy meera boo koy pato li nga xamante ni bii mooy leen bokk ci ay mbuuraan nag bëñ yuy metteeg lépp macha allah nee naa day dindi bépp lépp lu bokkul sa gémmiñ bu ko fekkee da koy dindi ba pare nag bàyyi la benn xetu fraîcheur bu baax boo xam ne ni macha allah mu am meera mu am am na am li nga xamante ne bi mooy jetol bi ñu indil tamit li nga xam ne ni mooy jetol bi jetol bi boo daggee mun nga ko ci daal di def mu wér xam nga dañoo nekk ci jamonoy nawet xale yi dañuy génn dañuy foo dañuy fubali macha allah bu sa doom daggee rek dangay ngay daal di toqal mu daal di wér boo sonnee tamit toqalal sa ndox macha allah boo ko kiwee am na savon madaar am na savon madaar am na savon noura am na savon noura xam nga savon madaar bi ak noura savon bi nooraa bi mooy da nga koy daal di sangoo xale mag ndaw ñëpp ko mën a sangoo te macha allah du def benn effet sa yaram da nga koy sangoo daal di dégg jàmm am na li nga xamante mooy savon mooy bi nga xam ne pour sa pour fóot la boo koy fóot yëre xale yi njaboot ji xam nga yëre xale yi dafay am na eau de javel bi am na tamit am na li nga xamante ni mooy nooraa nekk xam na ne dañu nekk ci jamonoy tàngaay te buñ mhm. nee tàngaay këpp sa ndox tuuti daal di tàmbal sa glace yaa xam am nga frigo yaa xam amoo frigo boo amee frigo nag da nga ko tey daal di def dégg jàmm bu fekkente ne da ngay laax moo ci gën a aay bu dee da fonde tamit macha allah bu fekkente ne da am xew loo munti di soxla daal l'écran daal fi la ñu nekk l'écran ñoo ci nekk jërëjëf ñu dem ci li nga xamante ne mooy pour ndekki bi waaw bu ndaw bi am na bu mag am na bu ndaw bu ndaw ndimbal njaboot la boo amul njëgu bu mag bi da am li nga xamante ne mooy voilà laa damay damay daal li nga xam ne mooy namage waaw papa kenn demul baleen nee leen tarkar la xool fi jamono toll ak actualité bi te ci dox ak ne dañuy wàcc jamono màggal te buñ ne màggal ne xam ne set loxo yeeg yëpp dafay daal di bëri da ngay di yóbbu li nga xamante ne bi mooy sa namage bi yaa ci xam nag tànn sa bu la neex la am na namage waaw tànn sa bu la neex la am na ci aussi li nga xamante ne bii tamit nag mooy savon liquide bi mooy savon liquide bi bii pour raxas moo ko tax a jóg lépp lu tilim lu oos lu dandu oto kër néeg macha allah lépp loo bëgg raxas ba ci fóot sax mën na ko kon bii dama naan ni nga xam te ne màggal xam naa nañ ci jël lu bëree bëri daal di te ni mu amee bu mag nag noonu la amee bu ndaw même boo ci mënta am sax bu mag bee mag ama jël bu ndaw bi foo jëm yóbbaale ko te xam nga ne boo leen dem fi ngeen dem day daal di bëri ay nit yóbbaale leen voilà boo leen bëggee raxasu boo ci paree nag am na li nga xamante ne bi bii xam nga bu ci nekk. waaw d'accord am na citron bii dafa am bi am na pomme am na pomme am na li nga xam ne mooy fraise bi nee naa la tànn ci bu la neex la tawa kon yéen ma gën a xam ni mu leen ko waxee noonu lay demee nee naa la kenn ku ci nekk ak sugu mais dama naan jaaraama ñii kenn du ñoom ndax nee naa leen saa su ne boo leen di seetaan seen émission Kouthia Show di ree bay xàqataay seen i bëñ di ñaq jàppal ni ñii ñoo leen koy daal di jox waaw. waaw li ma la laaj mooy. waaw lu tax ngay sol ay ma jaar subil verre la mooy sa problème yow yaa ngi nii macha allah rafet. Ah. looy solee yaa ngi def ay xef ba pare sol ay verre xanaa xef yi sax bu kon kon sol tu nga def ay xef ah. yaa ngi posé ay xef sol ay verre mais xam nga ne papa man pause bi nag du samay affaire man maman ñanga mi moom ko jox sànq rek naa def tuuti pause mais xam nga man ay pause <laughs> ak ay ongle yi du sama taxaw si sa xef yi julli ci ñaar rakk rek laa am envie ñu <laughs> ni moom kay moom loolu ne du ay caaxaan teel nga julli ci. dama ne sa xef yaa ngi mel na ku lal basal. bàyyil ma ki nga tudd ki nga tudd léegi. ña nga waaw moo la dugal ci loolu. moo kooku moom fii ak déwén. <laughs> yaakaar naa ne dootul na mën dara ci xaalis. dëggantaan kon anniversaire xam ne amal na la bor xaw na fay na la war a fayu la. waaye kii daal mu ngi noonu. anniversaire validé kon. kan validé. Ah, moo xam naa. Euh, sant yàlla suñu borom mi ñu sak ba ñu nekk ay doomu aadama ñu julli nag ci Seydina Mohamed paix sur lui nuyu nag suñu ñaari waajur yëpp nag képp koo xam ne am waajur yàgg si sa kanam di la uuf di la ñaanal ku say waajur nag dëddu àdduna ñu ngi koy ñaanal yàlla xaral leen àjjana si gën a kawe waaye mbokk yi ñu nuyu tamit njabootu Cheikh Omar Foutiou Tall gi yëpp di tàmbali nag di ziar suñu papa sëñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général kulu murid di ziar suñu papa sëñ Bay Si Mansour xalif général des Tidianes ak Pape Malick Sy bi kaddu kër ga sëriñ Abbas Mbacké xalif bu Daaru Muxti ñu ngi koy ziar Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général day Baye Fall ñu koy ziar Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalif bu Medina Baye Serigne Mame Abdoulaye Thiaw xalif bu Laayeen ñu ngi koy ziar ak Cheikh Ahmed Tidiane xalifa Niass Léona Niassène imam Cheikh Cissé nekk ci Medina Baye Serigne Cheikh Bekay Kounta xalif bu général bu Ndiassane Serigne Cheikh Tidiane Seck ca Thiénaba Thierno Bachir Tall xalif Omarien ak doom ja Cheikh Amar euh, Cheikh Omar sama xul sama wëlëre sama xarit ak Serigne Muniru Jigéen xalif bu Serigne Amadou Baro Jigéen ziar nañ ko ca Nimzaat Serigne Mouhamed Lamine Ngom ca Paal Cheikh Ahmed Tidiane Ba xalif bu Medina Gounass nekk ca Dakar ba koy ñaanal fan bu gudd wér gërëm Serigne Youssoufa Mbaye xalif bu Mame Cheikh Mbaye Serigne Mansour Cissé ca Pire ak Serigne Mame Abdou Dramé xalif bu Ndande Ahlulahi ñu koy ziar ak Serigne Mame Abdou Cissé xalif bu Jaamal Thierno Mountaga euh, Madane Tall bu Thierno Mountaga Tall njabootu Cheikh Moussa Camara Cheikh Moussa Cissé borom daaru ca Passy Thierno Abdourahmane Bari ma nga ca Europe ak Thierno Hamdou Rabi Wane di président soppe yi Serigne Fall bu Serigne Fallou Mbacké ñu ngi koy ñaanal fan bu ak wér gu yaram di nuyu tamit euh, ki nga xam ne mooy jëwri euh, Serigne Fallou Mbacké euh, di ko ziar di ko ñaanal fan bu ak wér gu ak jëwri Moustapha Sène wala rëm la yal na defal jàmm may leen fan bu ak wér gu di leen ziar tamit jàmm ju sàkk dàkk waaye tamit di nuyu alaaji Thierno Samba Sa Morabi ma nga ca Fouta ziar nañ ko ak góor gi Samba di représentant xalif général des Tidiane ca Ziguinchor Bignona ñu ngi koy ziar Serigne Cheikh Saliou Mbacké di xalif euh, di xalifu sëñ Saliou Mbacké yàlla fi yàgg te wër di ko ñaanal fan bu gudd moom Cheikh Saliou Mbacké di xalifu sëñ Saliou ak suñu yaay Adjara Boussa Cissé ñu ngi leen di ñaanal fan bu gudd wér gëram Serigne Mama Sougou Wadane mi nga xam ne moo seexal papay Awkara di Cheikh Adama Ñang borom xecc gi yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér gëram alaaji Seydou Sow sopp sëñ Fallou dëkk ca Passy sëñ Abdou Karim Mbacké nekk nag ca Palais ba ca Ndindi koy ñaanal fan bu gudd sëriñu Maman Mbeng la waaye tamit Modou Fleur nekk ca ga ñu koy nuyu cardinal Théodore Adrien Sarr Monseigneur Benjamin Ndiaye abbé Jean abbé Adrien ak abbé euh, Euh, euh, abbé euh, Janon ñoom ñëpp nag ña foofu nga xam ne mooy cathédrale ñii nekk nag ci paroisse mag yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla dafa jàmm kenn la jàmm ci barke yonent yàlla Yesu Christa borom xel mu sell mi ñu ngi leen di ñoom ñëpp maître Fatima Fall responsable politique bu mag nekk ca Ndar di marraine équipe Kouthia Show nañ ko Serigne Mansour Sarr chef religieux borom buddi ma préparé gàmmu international bu buddi ak suñu yaay Adja Elimane sama papa la sama xarit ñuy nuyu tamit alaaji Ibrahima Ba Xalula ak ki nga xam ne mooy imam ratib bu Banjul alaaji Aliou Maska ak sama yaay ajaratu Daara Cissé ña nga ca Banjul alaaji Ale Mbay bëgg mbaxal ca Serekunda na ko yàlla defal jàmm ak ko yàlla defal jàmm moom tamit Pape euh, euh, bu mag la ci jumaa Sëñ Babacar Si rabel taala ñu koy ziar ko ñaanal imam Kaaso Gassama nekk ca Parcelles Assainies kooku tamit suñu soppe la yàlla na ko yàlla defal jàmm mu ngi ñuy ñaanal bu ne góor gi Ablaye Niang jànkatu xasaayid euh, nekk nag ca ndar géej di magam jàngkat xasaayat bu mag boo xam ne ma nga ca ndar géej yàlla ko yàlla defal jàmm ñu koy ñaanal yàlla may ko fan bu gudd mu yàgg ak ñun lool waaye di ziar tamit Serigne Cheikh Ndigal Sène nekk ci ñàmbu moom mooy Thierno Yaya Ba Waliou Kamil nekk ci koy ñaanal moom tamit yàlla daf may ko fan bu gudd ak wér gu yaram Chérif Abdoul Moutalib Tidiane surtout ci Cheikh Ahmed Tidiane nekk ca Pikine góor yalla dëgg ngi nii ña ngi koy ziar ak njabootam yëpp ca Pikine yàlla guddal fanam waaye bu ñu demee ba Fuuta fekk fa Thierno Hamadou Amadou Daaru Kaba ñu ngi koy ziare kooku nag wax dëgg yàlla man ci almodom yi laa bokk moom Cerno yàlla na ko yàlla defal jàmm Cerno Cheikh Ñang xalif bu booy naa ji moom tamit ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram moom mi tabax ay daara jàngal xale yi ci yoonu siraatal mustaqim moom Cerno Cheikh euh, bu booy naa ji yàlla yàlla guddal fanam Cerno du Lamine nekk ci dëkk bu ñu naan Dungur Alpha ca Fuuta ñu ngi koy ziar waaye tamit ñëw fii ci Jurbel euh, ziar suñu mbokk yi nga xam ne ñoom nag Ah, ñoom ñoo fi nekkal suñu baay bi nga xam ne dafa dëdd àdduna di Alaaji Mbàkke Tandian rabi àlla taala anu di nekkoon waaliyu kaamil Bas Tandian bi nga xam ne mooy coordinateur daara ja ca dëkk bu mag bi nga xam ne mooy Medina Tandian may ziar sama papa Alaaji Mbàkke Tandian ak Alaaji di ay xalif yu mag yoo xam ne ña nga foofu ca Medina Tandian euh, Serigne Saliou Diouf euh, Diouf Mbaaleen moom nag wax dëgg yàlla nekkoon waaliyu kaamil dëddu àdduna yal na ko yàlla xara ci àjjana gën a kawe waaye doomam bi nga xam ne mooy xalifam di Serigne Khadim Diouf émission bi bés bu ne mu ngi koy teg bët waaye mu ngi ciy teg loxo ñaan moom ànd ak ki nga xam ne moom jëwriñ euh, Serigne Modou Diouf bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko moom mooy gaynde Cheikh Saliou Mbacké moom tamit jëwriñ la boo xam ne yàlla na ko yàlla defal jàmm saa yu xëyee di xool émission bi mu ngi yónnee ay ñaan suñu papa di Serigne Mouhamadou Moustapha Sow di waale Kaamil xalif bu maam mu ngi leen di yónnee ñaan xale yi nee na kontaan na trop ci liggéey bi nga xam ne yéen a koy def ndax yéen a ngi bëggal doomu aadama moom ak taaw ba di Serigne Ahmed Dame euh, Sow Moustapha moom tamit ñu ngi koy ziar di ziar tamit Serigne Cheikh Bara Amar nekk ca moom tamit ca Kébémer na ko yàlla defal jàmm waaye sama turandoo di maam Samba Dramé xalif bu Serigne Makhtar Kala Dramé dëkk ci dëkk bu ñu naan Dramé ndim moom tamit yónnee na ay nuyoo ci yéen Cerno Alassane Mbaye waxtu ñu wax ak mu ngi fii ci Sénégal ci Dakar di waaliw Kaamin moom nag Cerno Aliou Thiam mooy sëriñam ëlbatiku may ko doomam muy waaliw bu daadee séexal ab waaliw muy ñaari waaliw yàlla ñoom tamit seen bët mu ngi ci émission bi bés bu ne ñu ngi leen di seetaan di la ñaanal fan bu ko dëgg yaram loolu ab cant la alaaji cerno bari fat fat sama xarit la ma nga ca euh, yoof jàmmalaay moom tamit ñu ngi koy ñaanal fan bu ko dëgg yaram suñu papa bopp di sëriñ ahmadou seck xalif bu alaaji set seck ca xurdaan département de Koungheul ñu ngi koy nuyu dédicace à imam mansour seck nekk ca yëbal xale la waaye wax dëgg yàlla loxam dafa set waaye tamit jàngam dafa wóor moo taxit ay magam ay baayam daal di koy uuf jiital ko mu jiite foofu nga xam ne nag mooy ci yëmbal ca jumaa ja yàlla ko yàlla fal jàmm sama bap papa ko koy seetaan nee na bokk na ci li nga xam ne da koy bëggal moom tamit ñu am mbégte contentement defal ko ba ak Serigne Ousmane Diakhaté porte parole imam ratib ba di euh, Alaaji jàmm kii nag suñu soppe la nit ku baax koo xam ne wax dëgg yàlla daf ma réeroon waaye bi ñu gindikoo ba gisantewaat sama xol dafa sedd di Serigne Djily Gaye bi nga xam ne moo nekkoon fii ci Zac mbaaw léegi dëkk ca Touba euh, HLM Touba ca xayma ya di chef religieux di marabu nit ku yàlla baaxal la di waa Kabu Kabu Gaye di sëtu euh, Serigne Balla Yacine Kabu di waaliw Kaamin nit koo xam ne dafa baax nit koo xam ne dafa yiw ñaankat bu mag a ngi nii koo xam ne wax dëgg yàlla wax daf ma réeroon waaye ba ñu gindi ko am naa mbégte bu mag ba may ànd ak moom yàgg na yàlla ko yàlla defal jàmmoon sëñ Jili mi nga xam ne nag ma nga dëkk ca Touba HLM euh, xayma ca xayma ya di chef di marabu yàlla ko yàlla defal jàmm mbokk kilifa diina yi yàlla na leen yàlla sàmm kilifa diina yàlla nañ fi yàlla bàyyi ak ñoom ñu yàgg fi lool képp kuy kilifa diina nekk ci réew mi ñi tudd la ak ñu ñàkk la tudd ñaan gii dafa tasaaroo jëm ci ñoom ñi fi nekk ñun yàlla ñu gudd fan te wér ñi nga xam ne ñoo dëddu àdduna yal na yàlla leeral seen bàmmeel waaye nañu jàpp ne kilifa diine yi mal leen mooy war mal suñu bopp ñaaneel la ñu yàgg fi mooy ñun ñu yàgg fi yàlla leen yàlla bàyyi mbooleem kilifa diine nag ñi topp ci yoonu Seydina Muhammad ak ñi topp ci yoonu bi nga xam ne ne moom mooy yàlla yoon ci yàlla Yesu Christa ndax ñoom ñëpp dañoo bëgg démb rek abbé woo na di wax ba xolam fees ne ma mbégte bu muy am bu déggee ñu tudd cardinal Théodore Adrien Sarr monsieur monsieur Benjamin Ndiaye xolam dafay sedd guy nee na moom bu soobee yàlla te du ko bàyyi dimanche bu nekk saa yu duggee église mu ñuy ñaanal ndax ci benn yàlla bi ñaanal mooy yàlla bi nga xam ne moo ñu sàkk waaye kenn ku nekk am nga sa yoonu bopp waaye benn yàlla bi ñoo ko bokk kon ñun ñëpp dañuy ànd di kontaan kilifa dina yàlla yàlla nañ fa yàgg mbokk yi. waaw nañu invité. waaye bu Mbaye Gueye Faye génnee am nañu beneen invité artiste ah. koo xam ne moom tamit soppe Youssou Ndour la juddu la premier octobre tombé waral gaaf bu baax kooku princesse Gamel lañ koy wax mu ngay préparé wu di ñëw léegi balaa ñu dem ci princesse Gamel Mbaye Gueye Faye tey la anniversaire am mooy Youssou Ndour Mbaye Gueye Faye ah gouverneur Dakar nee na affaire dootul ay caaxaan de ah. waaw gaa yi dañ ci def CRD sax waaw dañ ci def benn réunion bu mag nii tey démb si démb si guddi dégg nañ ci réunion ba 4 heures matin waaw ci affaire dragon bi nii yéen ko jàppee kaf mais affaire bi léegi commencé na nekk sérieux mbay gay fay saltige yi nee nañu nañu seet koo xam ne buur géwél la baatam day way ca kaw mu am fit boole ci bu taxawee ci bunt ba wax li muy wax war a way li muy woy loolu nekk ci biir dana génn léegi nag kenn nematul wax dragon loolu nañu wax ndax loolu ay tur lay wax léegi ku ñëw seet si ko mu génn la sa tur la ñu seeti mbataas mbaay mu dalal mbay fay jërëjëf jërëjëf xale bi yàlla yàlla wéral baat bi ginnaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi tey ñu am kenn koo xamante ni nii wax dëgg yàlla kenn dootu ko présenté ci mim réew wax dëgg yàlla di doomu buur géwél bu mag koo xamante ni nii bu sàjjee nga kontaan non seulement tey ñu invité ko sunu plateau bi ñu war a waxtaan ak moom ti ñaari tomb Mbaye Guèye Faye maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay baa yaa ngi am jàmm eh, di kontaan ci yow jërëjëf dama ne sant 203. laa ilaha illallah soxna Ibrahima Guèye Thiaw yaay Awa Diagne yàq yaay Baba Diagne. borom Dakaru Ndiaye jël jëf Sango Maré. Eh, dama ne. ma woo ci bës boo xam ne ci laa judd. dëgg la ñu ne ma Matas mbay moo la soxla. ma ne Matas ku ma woo jàmm la lay soxla. dëgg la ndax yow yaa sama baay da ngeen amoon wóllëre bu yàgg. nga baal ma sax ma sumi mbaxane pour jox la cër. la waaye yow soo ma woowee damay ñëw. ndax sama anniversaire. suñ ma ci wooyee sama bésu anniversaire ba suma jur du bés bu naw euh, papa matas taas loolu tal ma taas ko jërëjëf xale bi bu ñuy waxtaan ak moom suñu xel day dal ndax lii di cool lii di tungu ni lii di mbabas wax dëgg yàlla xale bi maîtrise na ko waaye tey nag ñu am ñaari tomb yoo xamante ni dañu bëgg waxtaan ak moom bi ci njëkk mooy tey di jour anniversaire boo xamante ni nii kenn dootu ko présente wax na ko léegi léegi yaa jamais 204 astafirullah yaa jamais 203 wax na ko léegi léegi tey sa xarit rek sa doomi nday wax dëgg yàlla def anniversaire tey nan nga ko jàngatee. Euh, maa ngi su ay na nday nañu. dëgg lool donc sama woowee tey ci bés bii. Mhm. Euh, xaw ma la nga may parce que dañ ne ma Mbaye Gueye wuyul Matas Mbaye. Mhm. man la ne lu ma jàppoon danaa ko bàyyi. dëgg la waaye dama la bëgg xamal ñaar. Mhm. sëñ sëñ Birame Dieng Thiaw yaay Awa Diagne. waay dégg lii. lëg daaru mbay mooy sama maam. laa ilaaha illallaah. sama maam doon tëgg ba rabu Ndakaaru Ndiaye génn. dégg lii. Euh, fukki penc ak ñaar yi. Mhm. buñ musaan wootee sama maam ay tëgg. Mhm. kon yow rek laay déglu te xam na ne woote bii du woot bu ndaw. jërëjëf wax na ko léegi léegi maamam moo tëgg ba rab bi ne ba xër ñett génn ci Ndakaaru te nag Mbaye Guèye fee ca Géejawaay ñu am fa benn problème boo xamante ni nii ginnaaw yàlla dañ ne foog nu woo benn bëj géwél saltige yi wax nañu ko waaye tubaab yi wax nañu ko tiw bii ngay seen nii tiw bii ngay seen nii waaw wax dëgg yàlla jaaxal na waa Géejawaay ah bon non seulement sonal nañu lu yuxu ci biir kenn xam lu mu doon non seulement mi ngi tudd tur kenn xamul yéen tur lay wax ñu ne woon ah nanu woo kenn koo xamante ni bëj géwél la koo xam ne bu jiinee bu tëggee la ca nekk mën na ne bëxër ñett génn Géejawaay am jàmm mu am jàmm réew mi am jàmm soxloon ci kenn nag ku la yow ne ginnaaw yàlla yunit bi nag ah yoona nañ ci yaakaar de mbay euh, loolu dëgg la mbay loo waaye sama bàyyi daa moon wax ne waaw looy def bu ci ànd yow kese mbay ni ma ne sama baay daana ma wax ne ma lépp looy def bu ci ànd yow kese dëgg la te man cundum nga woo mhm. woo ma ci pax bu yaatu bu xóot <laughs> waaw dama mhm. euh, su ma xamoon ne lii la du ma ñëw man kese. laa ilaha illallah. ndax Baye Demba. Baye Demba. caat la rakk la. caat la rakk la. ñu ne ci kër ga. ci ma bokk ak ñoom ndey ak Baye. dëgg lii. Euh, du ma def dara te woo ma njabootu du Ndiaroos. Mhm. xam nga ñun askanu Ngéwél dafa yaatu. bilaay dafa yaatu. boo ko doon tàll mën naa dem ba Kébémer. waaw ma bëggoon nag euh, lii nga xam ne moo nga ma woon nii tey. Mhm. pour ma yër ko. Mhm. nga may ma ab diir ma dem xool samay mbokk. déet bilaay mbay jaru ko gis nga tiw bii yow yow rek. la fi sa maam ne der jàppum cool di ko tëgg ba rabu ndakaar la bëxër ñëpp génn am déet te la ca maam la ca maam sëta koy jël kon tey boo taxawee fii man leer na ma leer yàlla nga taxaw jàkkaarloog euh, euh, euh, rigol bi mu ne la jàkk nga ne ko jàkk nga jékk ba càkk dellu démb tëggal ko jiin aali na ci biir mën naa génn de waaye jàmbaari ngi waay waaw dañu koy xool. laa ilaaha am nañ ci moom yaakaar. Mbaye Gueye Faye néewlu. Mbaye doo dindi weer yee. yërnul bu baax. may ma ma ñëw. may ma ma ñëw may ma. loolu xam na lan la xam naa lan la. bu fekkee da ngaa soxla mu cóol wala tummune wala talmbat noonu woo léegi léegi xale yi indil la ko. Euh, dama dégg sama tur. te dama waxoon jamais 203. da ngaa déggoon sa tur fii. waaw dégg sama tur. waaw. te dama dama mës a wax ne jamais 203. jamais 203. maanaam munoo wax ñaar te ñett du ñëw. la ah. benn baa ngi nii waxaguma ñaar. damay bañ ñëwaat fi mu nekk ñett. Euh, Mbaye ndax dama ne jamais. waaw xam nga nag Mbaye wax dëgg yàlla sa Ndakaaru noonu am ci yow yaakaar. waaw ndax sa diggante ak Youssou Ndour rafet na rafet goo ko xamante ne nii maara dee taali. waaw ngay bëj géwél tëgg fi lu nekk tëgg fi Ndiadiane Gine gina xam sa kër te xamoo këram yow yaa ko fi njëkk tëgg. waaw te sa maam mu tëgg ba rab bi na bëx ak ñëpp ñëw ci biir Ndakaar. kon yow boo tiimee tuyoo bi dem. ah ah Mbaye ah Mbaye mën yaakaar de Mbaye yëg na waatal tuyoo bi du ma ko yëndu. ah di nga ko yëndu ndax lépp ñun askanu ngay lépp lu ñuy def. Hmm. dañ ciy ànd man tundum sama baay naa ma wax bul ànd yow kese tundum ci lii ah dama ne <laughs> jëmal woo Youssou. Youssou man mel na Ndour su woyee ma daal di talmat parce que lii ay woye koy génne du sa ay sabar koy génne. jamono jay paas Youssou jaaroon na fi. waaw woy wuñ koo tegal. waaw dafa ni bind ko alhamdulilah rabbil alamin yaa ko bind. waaw yow lu Youssou woy yaa ko bind. lii nag du ay tëgg koy génne ay woye koy génne mun nay ànd tëgg nag. waaye ki koy way moo koy génne. ma mbay yow doo génne li ni fii xalaatuma ko jamais 203. mbay doo génne lii. Mame Ndiaye nga kër ga. Mame Ndiaye man kër ga bébé Fallou. <laughs> waaw lii lu ci yónnee Fallou ak Mame Ndiaye. Euh, ma ñëw doo dimbali askan yi. xam lu ma la bëgg a xamal. Hmm. sëñ sëñ bi di ca waye awa Diagne. waaye tey nag sëñ sëñ Birame Dieye ca waaye aw koy ñaanal fan bu gudd nekk ci marché bu bees moom suñu soppe la moom tamit ak grand frère am bu ñu naan baax yaay couture ñooñu ay soppe nañu rawatina nag góor yombul mi nga xam ne nag wax dëgg yàlla dafa taxaw temb euh, ngir fexe ba jàppale doomu aadama yu bëri nag li nga xam ne loolu ñu moo ñu koy ñaanal ak tout le personnel bu góor yombul maam góor Gaye gérant de boutique Gaye et frère nekk ca marché bu bees ñu ngi koy ñaanal kenn la jàmm di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram waa baax yaay couture ñoom ñëpp nag ay soppe nañu Modou Mbacké suñu xarit suñu soppe moo ñu wax xam naa nag incha allah ñoom ñu ngay préparé benn cadeau bu mag boo xam ne war nañ ko indil groupe Kouthia waa góor yombul euh, te maam góor gay nekk gerant bi euh, dédicace a maman euh, Khoudia Samb depuis Manchester ca Angleterre fan su Kouthia la de yaay Oumy Ndiaye London ñu ngi koy nuyu Sassi Sène responsable politique nekk ca Bakel suñu xarit la mu ngi leen di yónnee nuyu nee na nag bëgg na Kouthia Show décentralisé ñu defee ko ci Bakel incha ñu ngi koy waaj yal na yàlla may ñun ñëpp ñu fekk ko Jagisto et sa femme Khady Diédhiou ak euh, Boubacar Siaka euh, Abdou euh, Jagisto Boubacar Jagisko Siaka Jagisko ak ñoom Aojo PA ñoom ñëpp nag ñu ngi leen di nuyu di la ñaanal kendul jàmm ña nga ca Tambacounda di nuyu tamit bu baax ki nga xam ne moom mooy Modou Sari borom télé mbedd bi ca Grand Yoff en face mosquée monument ñu bu gudd a gudd gu yaram moom Modou suñu xarit la suñu soppe la di ko ñaanal jàmm alaaji Issa Sarr sopp na bi moom tamit ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram di ko ñaanal jàmm ak ñaari soxnam wayte na waajuram euh, bu jigéen di ko ziara tamit di ko ñaanal moom fan bu gudd ak wér-gu-yaram rawatina nag imam ratib bu Njaañ Njaga faatim euh, di sëriñ Njaga Jaañ ak xalif ba di sëriñ Amar Jaañ mbooleem Jaañ nañu ne foofu rek ñu ngi leen ñu nuyu euh, invitation bi nag muy grande finale du tournoi de l'amitié et de l'unité de la solidarité ca Malem Odar samedi le 5 octobre bii à partir de 15h30 ci stade municipal bu Malem Odar ñoom invité Kouthia Show nañu wax pour ñu fekkee li nga xam ne mooy finale de l'amitié et de la solidarité mu nekk nag lu am solo koo xam ne nag invité d'honneur ba di monsieur Albert Sarr di ancien directeur école ba tournoi ba nag de l'unité et de l'amitié de la solidarité de madame Odar ki ko initié di sama xarit di avocat bu mag ñu naan ko maître Abdou Guèye avocat nekk ca barreau bu Québec ba ma demee Canada bokk na ci ñi nga xam ne nag waxtaan ak moom waxtaan bu yàgg di nit ku baax di doomu Malem Odar ñoom nag ñooy def nag fête bu mag di final bu mag boo xam ne dañ ci invité képp koo xam ne nag daal wax dëgg yàlla ressortissant nga ak la jeunesse euh, malenoise et toutes les populations de département de Malem Hodar ñoom ñëpp nag ñu ngi leen di woo ci bés boobu mouvement nawetaan yi association sportive yi culturelle yi ndax euh, Kouthia Show ci boppam dañ fa ñëw teew yëngal balaa coup d'envoi bi di dem yàlla yàlla may ñun ñëpp ñu fekk ko te kenn bañ a manqué mbokk yi. suñu invité baa ngi xaar de moom tey la anniversaire am mu fekkee anniversaire Youssou Ndour du yomb waa CT plus sponsor bu mag bii nga xam ne ñooy leeral. ak beesal jigéen ànd ak ñii nga xam ne mooy groupe Madaar li demee ci bëñ ci yaram ci xotaan ak ci lépp ñoom ñoo ci ay l'écran bi neexal suñuy ngénte xewu jàmm ak gute ñoo ci ay ñii nga xam ne boo raxasee bëgg nam pom bu ko fóon sa loxo <laughs> ñoo ci aay ñoo aay tamit ci li nga xam ne nag mooy raxas lu os ak lu ës ñoo ci ay di waa ñoo leen may seen émission Kouthia Show eh! ah. borom bés bi danañu woo de ah. Youssou Ndour ci boppam jour anniversaire am tey la dañ koo woowaat parce que mbay Gueye Faye bi mu dawee def na ko ah jàmbaar daw la fa uti doole. Youssou Ndour nag way bañ ko tegaloon ca nga xam ne moom la doon way ca kaddu maanaam nit da nga war a sàmm sa kàddu moom ba mu duggee ca àll ba jàkkaarloog ay jaanu ñàngoor dóor leen yat dem ca teen ba ruuti ñëw jàkkaarloo góor gi wax ko way boobu nag da koo jàppaat mu tëdd nelaw mënut a nelaw mu ne moom en tant que roi mbalax ak lu munti xew rek warut a daw. Youssou jéngu na ci anniversaire am lu xew rek. moom dana ko jéng ñu xoole Youssou Ndour bu demee tey lu mu fay jëlee jërëjëf jërëjëf jërëjëf tey way wii dafa xaw a tega tembe waaye ginnaaw ba sante yàlla julli ci yonent bi tey danoo invité kii nga xamante ni nii wax dëgg yàlla def na lu ne ci réew mi gérer group Futurs Médias di koo xamante ni wax dëgg yàlla tey fi musique Sénégal lu yóbbu egg moo ko fa yeggal di koo xamante ni nii def na lu ne ci réew mi ñu gën koo xam ci Youssou maa jigéen Ndour Youssou Ndour maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi kontaan trop di leen nuyu. di wax anniversaire bi tey euh, keroog bi ma wooyee. Mhm. Euh, sama ay mbokk lañ ma woo. dëgg la. parce que man surtout maam Marie Sène la te Ndakaaru Njaay gii dama cee am cër. da nga cee te yaakaar naa ne. Hmm. Euh, way naa way bu ne. lu ne war nga ko ci àddina. way naa fi Bamako. yaa ko way ci gaar gi la ma fekk. laay muy sànq sër déggal te lu ne gis naa ko ci àddina. Euh, te jàmbaar dawul dafa wuti doole. dafa wuti doole. way bi ma tegal keroog nag. bi ma hmm. ko wayee mu tudd kaddu. kaddu nga xam ne nee naa ci biir way bi. tasa naag ay jaanu ñàngoor dóor leen. ba ñu daw ba ñu daw. te taxul ma jéngu ko. la way boobu bi ma demaatee ba toog eh, <laughs> sama doom woo ma xale yi na ma papa gis nañu ni nga doxalee. Mhm. mais ñoom euh, dañu bëggoon daal ma wan leen jàmbarte. wax dëgg yàlla affronté bëgg naa wan gars yi ne man. duma Omar Pène duma Baaba Maal duma Ismaël Lo. laa laa ilaaha illallaah <laughs> tàccu leen ma ko mu ngi noonu ñu naan kooku mu Youssou euh, Ndour tey ci anniversaire bi. dama ñëw pour jaayanteeg li nga xam ne moo nekk fii. jërëjëf yàlla sunu borom parce que géejawaay ne ci samay tournée saa yi fa wootee macha allah yàlla dafa ma. ah la la kóllëre waaye kóllëre moo tax tey nag incha allah. Mhm. balaa dara di am sax damay tàngal gars yi ba pare. tey man maay tàngal waa géejawaay ba pare. est-ce que laay laay li la rusi bu fekkee am na lu yemb foofu nga mel ma ko yusuma jigéen Ndour tey dafa war a tàngala boppam wane boppam ndax dëj géej waaye tamit feeb feebam ci la bokk rusi oh, waaw ah, ah ah lu ma wax yéen la moo ko wax yokkal loolu lu ma wax yéen a ah. fu ma jëm yéen a ah. li ma bëgg ñam la ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal eh. mooy sunu gaal. dëggal ma bës yi. bilaay du ma la ko baal. bëgg naa leen. laa ilaaha illallah. ah jàmba. noonu lay dégg ni ngeen di solo noonu lay solo. bien si ngeen def. ruusi. ruusimbe sa basa est-ce que pare ngeen li ni ci ne Njaay Dragon Dragon Njaay bu dee Njaay nga sant génnal Njaay Njaay Dragon Njaay Gaynde Njaay Njaay Njulli Njaay Njaay Sénégal Njaay Njaay Ndakaaru Njaay yow dragon. ah. bu dee Njaay nga sant. génnal fii. la ilaha illallah. ñëwal. kay dee Njaay. ah. bu dee Njaay nga sant génnal Njaay. loolu la. génnal génnal. suuf. ñu ngi ceeb Assa Ndiaye pour que sàmm leen. ah, ah. jox ko la jox jox ku la jox la Fatou Ndiaye Thiel ma sàmm yaa si gis jàmm comme sàmm leen ko jox ko bàyyi. Jogoma yee. Eh! Jogoma yee. ah Youssou Youssou. Ndiaye Drago. boo sarax. Youssou. Ndiaye Drago. ah. Youssou. ah. Youssou. Oh! ma jigéen. Youssou. suu Mame Marie Sène ah su la la gën a sëgg bu baax xam naa nga tëddee moo baaxul sëggal bu baax est-ce que vous êtes là <laughs> ñoom kenn ñëpp ngi nii toog Youssou la xam ici là Youssou ñëpp ngi dala déglu da moo tax billaay fit fit da koy jox jom Youssou billaay yaa am fit yaam fit yaam ngor. jàmbaar dawul dafa wuti doole gars yi ne leen waaw jàmbaar dawul. dafa wuti doole gars yi ne leen waaw jàmbaar dawul. am nañu mbégte ak contentement bu mag di gërëm bu baax ñi nga xam ne ñu ngi seetaan émission Kouthia Show yëpp ci biir réew mi ak li ko war li ko wër yëpp ñuy nuyu tamit waa Thiès Thiès benn dëkk bu ñu naan Thiali foofu nag fan si Kouthia Show bu mag moo fa am ñu nuyu dédicace à Marcel Tine Pascal Gueye Pierre Coly. Moussa Diène Victor Ndiolé dans depuis le village de Thiali ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu tamit de passage Victoria Lopez euh, depuis usine Benn Tali actuellement euh, mu ngi usine Benn Tali moom Victoria Lopez ñu koy nuyu di ko ñaanal la kenn jàmm est de passage fii ci émission Kouthia Show pour seetaan le déroulement de Kouthia Show Victoria Lopez ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit Cheikh Abdallah Cheikh Mouhamed Abdallah Thiam. soppee nabi président fondation Kër Rasoul ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér di ko ñaanal jàmm yàlla bàyyi ko ci réew ndax lépp loo xam ne mu ngi koy def ci bienfaisance ak ak social nit ñi teg ñu seen bët moom mi nga xam ne euh, ku baax la te lépp lu muy def rek mu ngi koy jëfal pour jàppale doomu aadama yi waaye nag gëm ki nga xam ne mooy Seydina Mohamed paix sur lui Cheikh Mouhamed Abdallah Thiam yàlla fi yàgg te wér moom dafa doon baayam bi nga xam ne euh, mooy Alaaji Medoun Thiam bi ñuy jooy ba tey noppi moom mooy xalifam kii mooy xalifu baayam rakkam laa xam bu naan Rokhaya Thiam mais maag maag Cheikh Abdallah Thiam ba ñuy ànd ëpp na vingt ans ca jamonoy télécentre la ba tey waaw ca jamonoy télécentre la ba tey yal na ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu yaram 13e édition grande nuit sant Serigne Touba Khadim Rassoul organisé par Serigne Mamor Mbacké mu ngi am euh, euh, le 4 ak le 5 octobre sa Guédiawaye amoo 4 sur l'égide de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké khalife général des mourides moo joxe ndigal ba wax grand final tournoi de l'amitié et de l'unité de la solidarité ca Madame Odar samedi le octobre Kouthia mii taxaw di wax ci stade municipal ba dana fa teew ca dëkk bi nga xam ne mooy Oumy Ndiaye London mu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram delluwaat di gërëm Serigne Djili Gaye mi nekkoon Zac Mbaaw ak Kër Mbay Fall di nit ku yàlla baaxal moo dem tuxu nag sancam bu bees nekk foofu nag ca Touba HLM Euh, ca euh, xayma ya ñu koy ñaanal fan bu gën a góor gu yaram mara bu waaye tamit euh, di waa gàbbu Gay di sëtu Serigne Balla Yacine gàbbu waaliw Kaamin bi moom Serigne Jili Gay yàlla ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gën a góor gu yaram ñu koy ziar ak taalibe bi nga xam ne moom mooy sëñ Moustapha Guèye xam sa diine ak ki nga xam ne mooy Baye Cissé le miracle dëkk nag foofu ca Cité Fadia ñu ngi leen di defal fan bu ñaanal fan bu gudd ak yor gëram defal leen ko mbokk yi tey la anniversaire moom tey mooy anniversaire am waykat la muy tudd princesse Gamel princesse Gamel bi ñuy invité génn na ay single yu bëri way na ay way yu bëri mais tombé moo tax mu ñëw tey ndax la premier octobre bi anniversaire am la muy anniversaire u Youssou moom tamit muy ndaanaan bu mag di yëngu ci banlieue bi ak ci capital bi di yëngu tamit ci région yi di def lu nekk ci biir euh, euh, euh, soirée yu bëri moom princesse Gamel mu ngi koy yëngal di jël chemin nànk-nànk yàkkamtiwul tey nag mu ànd ak suñu xarit di Mister X mi nga xam ne ñëpp xam nañ ne designer bu mag la infographe bu mag la moom tamit daal koy accompagner pour indi ko fii nga xam ne moom mooy plateau Kouthia Show ma bëgg ngeen may loxo ki nga xam ne moom mooy princesse Gamel voilà très bien merci merci merci merci merci merci merci merci jërëjëf jërëjëf moom nag mooy princesse Gamel ku yàgg nag koo xam ne ci musique mu ngi ci def nànk-nànk xam musique yàkkamtewul yàgg ci tamit te yàkkamtewul amoon opportunité yu bëri génn génn CD mais dafa teey pour créer li nga xam ne mooy base te nag am na ko ndax ku ko gis muy def live ci biir ay mbokkam ak fi nga xam ne fa la jóge di ñëw rampe ci banlieue ba ñëw ci capital bi ki mooy princesse Gamel Jean Jérôme bu dara sedd eh DJ Son sous l'égide de Serigne Babacar Sy euh, Mansour euh, et la bénédiction de tous les khalifes généraux de la Khadriya Tidiania le collectif international des talibés cheikh officiel ñoo ñuy woo troisième édition célébration de la kat euh, de la Katmiya Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif le samedi 12 octobre 2019 ci CICES lay doon à partir de 9h waxtaankat ba di oustaz Pape Kane Fall hommage a Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin yàlla na ko yàlla leeral bàmmeelam te ñu koy ñaanal ak yàlla yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe Serigne Kosso Mbacké et le DTA 28 organise le grand euh, magal de euh, du jour où borom daaru est allé à Ndar si ndigalu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul samedi le 5 octobre 2019 te terrain notaire en face de voie falay amee spécial gàmmu sur l'égide de Serigne Mbaye Mansour khalife général des Tidianes de Alaaji xalif euh, euh, général des Tidianes El Hadji Mam Abdou Dramé xalif de Andoulaye euh, la communauté sénégalaise de Mulhouse woote première édition Gamou organisée à la mémoire de feu Adja Abi le 26 octobre 2019 à la grande salle de Parc Gloum Mulhouse le Gamou sera présidé par Serigne Habib Sy Mansour animation Souleymane Ba Sambay bi di imam Maktar Diouf de Lyon mbokk yi remercier nañu plus gaam bii nga xam ne day maintenir teint ak bi accéléré teint groupe Madaar waa l'écran ak groupe Namaz bi nga xam ne namuñu dara ci lu set ak xeeñal loxo wu neex ak setal lép loo xam ne dafa ës ak os mbokk yi ñu daal dee tëj parce que gouverneur ci boppam démb ànd na délégation président Macky Sall nee na mbir mi comme que gars yi amuñu compétence moom dina ko génne jaar na ñaari yoon tey mooy ñetteelu yoon ñu xool ndax tey président dana ko génne war a du génne ñu delluwaat fa ci géej waaye xool la fa nekk. borom oh, jërëjëf jërëjëf jërëjëf xale bi way nga lu neex loo xamante ni nii duñu ko wayil cuune duñu ko wayal ñambar nu ko wayal ku yaafuus duñu ko wayal koo xamante ni nii day tëdd ba biddanti kii ngeen seen nii ah mooy sunu président de la république de tous les sénégalais di koo xamante ni nii mi ngi dox ci bànni xur di koo xamante ni nii nee naa ci mbégte mi ci lay dox di ko xamante ne ni wax dëgg yàlla fi la juddoo fi la yaroo fi la fekk baax fi la ko baax fekk di ko xamante ni nii day dox ci mbégte yi doomu aadama yi waaye non seulement di dox ci jafe-jafe doomu aadama yi xale bi way na ko léegi-léegi bu ñuy wax gaynde jàmbaar fit jom àdda nga ñëw fii nag nga xamante ni nii mooy makki Sall Macky Sall maa ngi lay nuyu maa ngi lay am jàmm ci laa nekk nii jërëjëf ci la nekk nii wax dëgg yàlla tey nag émission bi dafa laa daw li tax ma laa demee mooy problème bii nga xamante ni nii géejawaay ñu ngi koy dund di am tiis ak ak njàq ak ak jaaxle kii nga xamante ni nii waa na ko lu jëriñ nii mooy sunu mooy sunu président de tous les sénégalais ah tey indi na ay bagages ni ne téew bi ah tey dafa bëgg a jàmmaarloog moom li ne ci téew bi daal ah tey tey da ko bëgg a génne Macky sal waaw tey dafa mel da ngaa waajal sa bopp waaw léegi dem naa ba xool waa ministre de l'environnement xool nañ ko xool nañ ko nee nañ li fi nekk bu nekkul rabu àll tamit dina nekk loo xam ne du leen jaaxal la mm. te bu ñëpp dawee dem si dem ci pale bi ci sama kër nañu daw waaw léegi nag li ma bëgg mooy mm. a fexe ba xool parce que lii mosoon na am ngii ju lon ngii ju lon mooy fi ma juddoo laa lu mel lu mel ni daanaa ko dégg foofu mais bu ñu jëlee ndox mu tàng rek mm. ak bant soo ko ci ruuxee nii rek da ngay gis mu daal di yëngatu nga xam lan la lii du nekkul lu garaaw. Ah. non non man xool naa ko ba xool nekkul lu garaaw. yàlla baax na waaw yàlla nga ci am ndam. waaw ñi fi jaar ñëpp wax dëgg yàlla am na ci ñoom njàqare waaye yooyu yàlla ci yàlla may ndam kon loo bëgg def nii. loo bëgg def nii. dama ko bëgg xool dama koy lukkut. lukkut ko waaw. ndeysaan laa ilaaha illallah. même ma tuuti ma ñëw. yow billaahi am nañ ci yaw yaakaar si sa xaaral mu toqal mu tuuti. damay koo tuuti. jërëjëf yàlla sunu borom loo xamul xamoo ko loo xamul xamoo ko xamoo ko xoolal lii rek bu dee luy rey la bu dee luy rey la wala luy gaañu bu ma yóbbu man kese na yóbbaale gaañu Idrissa Seck Sonko ma dëkk ñaaw gaañu man la loolu la lii du dara de dara du dara du ah gënal fii ngay font yow Macky waaye dama na la yow mii Macky boo dee góor gënal nga jàpp ko dama na du naara la la la la la Macky gennal soo génnee ma dugg de loo xëcc foofu loo xëcc sama dugg sama ma ko ko ah gennal laa wax man li yëngalu ma Amadou Ndiaye Khalifa Sall ñetti at ci kaso bi man ma dara Macky Amadou. allo. Macky. ah. Amadou. Amadou man. ah tur boobu. Macky. Macky. Sall. Macky Sall. yow la suran yow guddi ma daa fa ñaafa de taam de kaw jingo. Macky. naa lan la. nga ni xam naa la gis naa ko. gis nga na ne fii. waaw jërëjëf yàlla suñu borom. neewoon naa la bu la neen di ko génne rek dina ko génne. laa ilaaha illallaah waaye tàccu leen xale waaye tàccu leen suñu de la république waaye. daa nga xam ne man maay Macky Sall gis naa ko. ah waaw am nañ ci de am nañ ci yow xoolal jàppal ma lii rek moom jàppal ma lii jàppal lii ci ginnaaw da may jàpp ci ginnaaw waaw téye ma ci ginnaaw rek gis naa ko téye ma gis naa ko gis naa ko téye ma ci ginnaaw muy génn gis ma bàyyi ma bàyyi ma kii dama bàyyi ma bàyyi ma dama lay wan bàyyi ma. bàyyi ma